ñaari nit kenn ki di laaj kenn ki di tontu kenn ki di wax ne zakatul fitr amul ci lislaam ak julli korite amul ci lislaam muy mbetteel bu garaaw ab jullit bu toog di weddi lislaam di weddi waxu yonent di weddi diine mbokk jullit yi vingt cinq xadiis a ngi nii yu wér këng yuy wane ne zakatul fitr ci koor la bokk moom dane zakatul fitre bokkul ci koor vingt cinq hadis laa wax yu wér këng yu jóge ci gémmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa yi wane ne zakatul fitre yonent bi moo ko faratal ci jullit yi hadis ba ca jiitu mooy hadis ibnu umar radiallahu anhuma qaala mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri min arramadan sa'an min altamri aw sa'an min alsair ala alabdi walxurri walzakari walunsa walsagiri walkabiri min almuslimina rawahu aljamaa ibnu omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa farataal ci julli gi joxe zakatul fitre ci ramadan bu ñu balaa ñuy génn di julli ji yonent bi ne joxe zakatul fitre mu nekk saan min a tamr ñu joxe ko ci tàndarma walla dugub ci jaam da koy joxe gor daf koy joxe góor daf koy joxe jigéen daf koy joxe xale daf koy joxe mag daf koy joxe bu fekkente ne ab jullit nga loolu mooy premier hadis ñaareel hadisu Bukhari te imaam Ahmad génne ko ak Abi Daawud mu ne wa kaana ibnu umar yuti tamra illaa aaman waahidan awaza tamr fa ata soir imaam ahmad nettali na ci hadis buxaari ak abi daawud ñu ne ibnu umar da daan joxe tàndarma lu dul benn at boo xam ne tàndarma yi dafa am feebar bu ci dugg ibnu umar daal di joxe dugub mbokk jullit yi ci hadisu Buxaari yi mu ne wa kaanu yutuuna qabla alfitri bi min aw yawmayni ñetteelu hadis mu ne sahaaba yi dañ daan joxe balaa julli idril fitre ci benn jour wala ñaari fan buñ ne julli gi des na ñaari fan ñu joxe zakatul fitre buñ ne julli gi des na benn fan ñu joxe zakatul fitre mbokk jullit yi naka la jullit di tiimee waxi yonent bi di ko weddi naan bokk ci subhanallah subhanallah jullit tiim ci waxu yonent bi di ko weddi naan zakatul fitre bokkul ci lislaam te hadis yi ne weng vingt cinq hadis ñetta ngoog hadis ba ca hadis abi said nee kunna nuxriju zakatal fitri saan min altaami aw saan min aqtin aw saan min zabinin axrajahu abi saïd nee nekkoon na ñun sahaaba yi di génne zakatul fitre mu nekk ñam goo xam ne ci ceeb wala ci tàndarma lañ ko daan joxe wala yu mel ne noonu lu mel ne diw mbokk yi mbokki jullit yi jëlee nañ ci hadis abi ba tey nisaa yi boobu moo ko génnee mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam صدقة الفطر صاعا من الطعام أو صاعا من الصعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو حجة nee na jëlee nañ ci xadis abi saïd mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal joxe azakay muurum koor ci ñam min a toami mu nekk ci ceeb bele wala ceeb wala tàndarma ah beneen bi xadis daarul qutni boobu tamit benn la ci xadis yi xadisu ibnu umar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa santaane amara bi zakatil fitri an tuadda qabla al xuruji nnaas ila salaati rawahu ljamaa illa ibnu maaja ibnu umar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digle ñu joxe azakay muurum koor balaa ñuy julli ji balaa ñuy génn jëm ci jullikaay bi nañ ko joxe xadis ibnu abbas nee na farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakata al fitri tuhratun lissaaim min al lagwi wa rafas wa tu'matun lil miskin fa man addaaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula wa man addaaha ba'da salaati fa hiya sadaqatun min as-sadaqaati abu daawud wa ibnu maaja ibnu abbas nee na bi sallallahu alayhi farataal na azaka muurum koor mu nekk day laabal ki wooroon ci caaxaan yeeg mbuusóor yim doon def minal laxwi war rafasi caaxaan yeeg mbuusóor yi ak yu daganul yim daan def yu ndaw nee na waaye ñam la goo xam ne day bégloo ab miskin biñ ko jox yonent bi nee na faman addaaha qabla salaati ku ko joxe balaa ñuy julli ji fa hiya zakatun maqbula yàlla def na ko azaka bu muy nangu képp koo joxe bu ñu julli ba pare nag fa hiya sadaqatun min as-sadaqaati day nekk benn sarax rekk ci sarax yi doomi ndey mbokki jullit yi nañ yëg ne diine ji dafa am ñu ko rax ay bukki yoo xam ne dañoo sol ay mbubb yoo xamante ne mbubbi jullit yi lañ sol dugg ci biir jullit ñi di yàq ak di weddi ak di lëndëmal ak di gëlëmal nit ñi ak bëgg indi ay sikki sàkk ay duut ci dundu doomu aadama yi boo ne yàlla nee na ñu firee ko neneen buñ ne yonent ñu ne wérul walla bokk ci wala du ay wax yoo xam ne kenn xamu ko ci biir senegal tey te li doy waar ñoom ñoo fees del del del del del ci ecrantele yi dafa mel ni borom télévision yi dañuy collaborer ak yàqkatu diine yi effectivement loolu sax moo am dañuy collaborer yàqkatu diine yi di leen wooj di leen ubbil plateau yi wallahi lazi la ilaha illa huwa mbokki jullit yi zakatal fitre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal ci ñun mu ne day laabal ki ci ay mbóosóoram ak ay caaxaanam yim doon def yenn saa yi wax yi nga xam ne da koy rëcc te du ko tey nee na mu nekk tu'matan lil masakin mu nekk ñam boo xam ne day bégal miskin bi nga xam ne amut kon bu nu dégg waxu gaa ñi nga xam ne diine ñoru leen diine yittelu leen gëmuñu diine bu leen leen déglu doomi ndey mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk déglu leen téere yàlla déglu leen téere yonent bàyyi leen leneen lu du loolu da leen di sànq da leen di réeral da leen di teggiloo ci yoon wu baax bi déglu leen yàlla kub yonent ku leen wax diine ne leen ko fu ko yàlla wax wala fu ko yonent wax ku leen di wax diine def leen nangam ak nangam nee leen ko fan la ko yàllaa kub yonent wax ngeen noppalu wallahi alazim su ngeen tàmmee wax ngeen ne ko indil ñu dalil fan la ko yàlla wax fan la ko yonante wax ngeen noppalu waaye sàmba nee na bàyyi diw nee na bàyyi moodoog mooy bàyyi moodoog bàyyi demba loolu du ay hadis loolu du diine bàyyi sàmba nee na bàyyi moodu nee na ah dégg sànq laa dégg ñu naan benn waay bar la woon diw moo ko dekkil bar la woon kenn ndox la woon diwa ko dekkil defaat ko nit xoole caaxaan yooyu ñuy jël di ko dugal ci diine ji ay diw bar la woon diwa ko defaat nit diw ndox la woon diwa ko defaat nit ah non c'est pas possible mais Sénégal xaw ma fu ñu jëm te bi doon wax ne innama axaafu aleykum aimatil mudillin li ma ragal mooy ngeen am ay njiit yi réeralaate tey foofu lañ toll njiit yoo xam ne xamuñu yàlla xamuñu yonent kenn mun la cee waxal taril alxuraan fukki saar yu mat wala mu tegal la juróomi xadis yu yu mat ay caaxaan rek bàyyi moodoog bàyyi sàmbaak bàyyi demba ba mu naawee feek bàyyi moodu kapte kook néew yi dañuy jóge ci armée li di naan kafeek ay mooy la néew yuy naan kafe nga defe ne nit dina dina dee dekki naan kafe delluwaat ci armée li waaye nañ waxante dëgg waay nit dina naan dina dund dee suul ko mu dekki naan kafe delluwaat ci armeel bi tëdd ñun ban adduna lan nekk mais est que Sénégal yi dëgg-dëgg réellement xel yaa ngeeg seen xel a ñoom question bu may laaj ndax ma ne Sénégal laa wax ñi fi yeew dëgg dëgg dëgg ndax xel a ngeeg ñoom xel wala lenn ci ñoom bopp lii mooy lan ay néew yuy naan kafe ay bari yu nekk nit ay ndox mu ñuy soppi nit loolu mooy lan te ay doomu aadama koy def doomu aadama bu mënoon dara du dee te ki ki li doy waar mooy kiñ naan dekkilaate na dee na bu yàgg kuy dee di nga defar ay bar nit ah nañu delloo si war xel yi xam ne mbir mi diine la du ay farfarloo taggaate yëkkati lii duufal lii lenn dong moo fi duuf mooy yonent bi lenn dong moo fi duuf mooy yàlla lenn dong moo duuf mooy lislaam lu dul loolu pënd ak poussière la du dara du tus soo duggee bàmmeel kenn du la ko laaj boo dekkee kenn du la ko laaj soo deewee yàlla lañ lay laaj ak yonent bi man rabbuka wa ma diinuka wa man nabiyuka wama kitaabuka ñeent yi lañ lay laaj ana yeneen yi ngeen di duufal yal nañ yàlla def ci ñu dégg topp ñoo ngi jéggalu kàddu gi kàddu yi mbokk jullit yëpp réer rek la ñuy bañ ñu réeral jullit yi yal na yàlla taxaw ñëpp yal na yàlla won dëgg wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla won neen wërsëgal ñu sori ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.